loolu mooy solo si tey d'ailleurs euh, tey kenn amul euh, maxaama nga ne man kese. Hmm. maa am droit dem wuti ji maa am droit dem waxtu ji ak sénégalais yi nee naa la ñun def nañ ko ñetti yoon. ci lu hmm. mu néew néew néew. am ngeen ci expérience waaw ñu dugg ci rëkk bi hmm, dem seeti sénégalais yi saafonte ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom laaj leen seen ay mëbët laaj leen lan la ñuy xaar ci ñun def nañ ko defaat ko defati ko mais terewul tamit keneen ku ko bëgg moom moom mi nga xam ne sax njiitu réew mi nga xam ne bokkul ci élection bi sax xëy na bu dee mm. daa am candidat am bu mu nar a bu mu nar bu mu nar a bu mu nar mm. promouvoir su leen mm. neexee ñoom it ñu dugg ci àll bi keneen beneen leader bu yaakaar du bokk ci élection yi bu du ci bokk loolu amul yaakaar du ci bokk d'accord dinañ ci ñëwaat waru cee bokk dinañ ci ñëwaat euh, mm-hmm. léegi euh, laaj bi mooy est-ce que aussi euh, parce que gis nañu pratiquement leader bokk yeew yi yëpp ñu ci bari ñu ngi ci terrain bi bari nañu est-ce que gënul woon wóor. Mhm. est parce que xam nañ ne li ngeen d'accord dès le départ mooy leader yi na ku ne dem. Mhm. ku dem tour ñu jàppale la. Mhm. mais est-ce gënul woon wóor aussi ngeen fédérer les forces. ba am au moins benn wala ñaari candidat pour pour pour gën a am chance en deux mille vingt quatre. Socé hmm. wax naa la encore une fois. Hmm. démocratie la ñu nekk parti unique. Hmm. candidat unique. yooyu ci jamono yàgg ya lañ ko doon xalaat. mais jamono bi tey dafa évoluer monde bi dafa dem démocratie am fu mu toll ba nga xam ni tey kenn ku ci nekk. Hmm. am nga droit nga ne man lii man maa ko mën a yor ñun grand parti jàpp nañ ne le président El Hadj Malick moom mooy candidat bi gën. Hmm. jàpp nañ ni profil am mooy profil bi gën. noonu la waa Pastef amee droit jàpp ko ci seen candidat Ousmane Sonko. Hmm. noonu la waa taxaw Sénégal amee droit jàpp kenn ku ci nekk am nga ko. mais nag. askan wi ci jëppaandaw gi ñoom ñooy tànn. Mhm. loolu moo tax man d'accorduma ci ay élimination boo xam ni eggagul ci askan wi ñuy éliminer à la place de askan wi nañu bàyyi askan wi ñu tànnal seen bopp. d'accord la classe politique. Mhm. am nañ maturité am nañ responsabilité bu mat sëkk bu nga xam ne tey ku ci askan wi ni yow da ngay toog xaar dinañ toog xaar te dinañ ànd ak ki nga xam ne moom la askan wi tànn loolu ñun amuñu ci benn problème. Mhm. mais tolluwuñu foo xam ne tey naan euh, ñëpp. nañu tënku ci benn nit tey suñu jëlee exemple ak nguur gi ñu am nga xam ne lu mu gën a aay mooy képp ku mu xalaat ni mën na koo faagaagal rek mu éliminer la hmm. yaa ngi def na ko législative d'ailleurs liste nationalu coalition hmm. Yewwi Askan Wi hmm. nan la ko def mais foofu tamit gars yi ñoo def erreur. nan la ah. ba ñu jëlee. xool tous les leaders ñoo nekkoon ñoo nekkoon ci liste bi. mu jël liste national paquet teg fële. mais ñoom am nañ ci mais mais mais admettons non ñu ngi eggagul nekkuma ci législative maa ngi dama la jox exemple mhm. rek maa ngi maa ngi toll nii ci ci mhm. ci ci présidentielle bi. Mhm. admettons que tey ñëpp ànd ak ñu jiital benn candidat. mu dem comme na mu ko defee woon ak conseil constitutionnel am moom <laughs> ak ministère de l' intérieur am moom. Mm. mu ñëw trouver benn subterfuge ba euh, fexe ba nu mu nu mu faagaagalee candidat boobu su boobaa day taal Sénégal parce que sénégalais yi duñ ko nangu. mais mënoon ngeen def ñaari candidat déggoo li ma la wax kii li ma la wax. ñun li ñu wax est ce que question bi rek la ko dès le premier tour aussi gën a wóor di. li ñu wax ay deuxième tour ak non xam nga. Hmm. du moment que démocratie dafa maye loolu dañ ciy wax. Hmm. mais kay gagné mën naa gagné sax premier tour ah. Hmm. mën naa gagné sax premier tour. tout à loolu du lu ñuy wax naan. ñun lenn li leer ci élection bi. loo xam ne amul laam-laamee. mooy ni moom du bokk. le reste nag yëpp ay réalité politique la euh, et comme ni ñu koy waxee ah yàlla ba mu noppee du tey. d'accord mhm. mais moom du bokk boobu ngay wax. Mhm. waa këram dañ ñoom waxuñ loolu. waa këram moom waa këram du ñu wax leneen la ñuy wax dañ ne. muy taw muy naaj mu sedd mu tàng dina bokk. discours boobu moom dégg nga ko ci réew mi loolu loolu. su boobaa bu demee nag ba ñu officialiser ko lan ngeen di def. ah mais dëkk bi daa am yoon tey. tey man lu tax bëgguma sax man di di débat ci loolu parce que soo ciy nekk di ci débat. Mm. dafay mel ni comme si yooyu yaa ngi koy trouver ay explication ci ñu mën a bokkam ak ñàkk bokkam. Mm. constitution nekkul loo xam ne ku nekk nu mu la neexee yow côté bu mu la arrangé noonu nga koy interpréter lu ñu bind la. tënk ko moom ci boppam mu yàgg na ko wax bu leen neexee léegi mën ngeen a ay ay ay ay am ay mm. ay vidéo yoo xam ne moom moo koy waxal boppam. mais xam nga nag waxul point moom moo ko wax léegi nag. mais wax waxeet constitution da koo bind. wax waxeet nag dafa am histoire ci réew mi aussi. ki ko fi defoon fu mu mujjee. waaw ah, ki ko wax waxeet moom maa waxoon waxeet moom ah. ki defoon fu mujjee moom na ko jéem. Hmm. et puis argument argument juridictionnel bi ñu leen di opposé mooy dañ naan la constitution l' actuelle constitution ne parle pas de mandat de sept ans. dama ni mandat cinq ans lay wax. dama ni gor sur cette base. dama ni benn mandat de cinq ans. gor hmm. pour ñu mën la considérer gor. Hmm. dafay fekk say waxi daaw méngoo ak say waxi ren. ah est que yaakaar nga ne yow li nga wax constitution dafa wax ñoom moom mu reprendre ko. Hmm. donc ñun na ay nitam wax lu leen neex ñun moom la ñuy déglu askanu Sénégal. Hmm. moom la ñuy déglu. waaw léegi bu ñu demee ba conseil constitutionnel ñu valider sa candidature su boobaa luy doon seen taxawaay. su boobaa dinañ jël suñu ay responsabilités incha allah. Hmm. ah su boobaa. sénégalais waxuma wu politicien bi lu ngeen di def sénégalais yi ah. dina ñu jël seen ay responsabilité sénégal nag yàlla def na ni yàlla def na ni yàlla def na ni léegi hmm. euh, nit ñi dañuy yeewu ci lu bëri ah yàlla def na ni sénégal léegi nekkatuñu yàcc yasar di toog di seetaan hmm. que kenn di décider à leur place du classe politique du kenn les sénégalais mhm. dañoo taxaw léegi di jël seen hmm. ay responsabilité loolu li nga wax noonu dëgg la voilà wane nañ ko ci local yi wane nañ ko ci législative yi ñoo ngi toog di ko xaar mais taxawaay bi nga wax nii bi Ablaye Wade waree dem lànk netu dem forcé xam nga sénégalais yi jël nañ seen responsabilité comme ni nga ko waxee. ba mat c'est vrai que gañewul mais malheureusement am na ci ñu ñàkk seen bakkan est-ce que aussi yooyu vraiment tamit waruñ koo mën a dépasser ci réew mi. Euh, ci moom la dépendre. Hmm. ci moom la dépendre parce que tey dañoo nekk ci réew mu nga xam ni dafa am lu yoon maye am lu droit maye am loo xam ni constitution moo ko tënk. Hmm. tey bu ñu demee Sénégal ba. ku mu neex jël constitution ba defee ko nu la neex nañu jàpp ni ñun amatuñu nation nañu jàpp ni ñun amatuñu république nañu jàpp ni ñun amatuñu démocratie. Hmm. lu neex waay def armée mexicaine. <laughs> déet waay non moom su fekkente ni foofu lañu bëgg a yóbbu. Hmm. mais dinañ ci xam dara mais li am solo mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk moom gënuñoo bëgg Sénégal. Hmm. moom gënuñoo bëgg Sénégal. donc amul dara dara dara loo xam ni euh, war na ko mën a jaxase xelu askan bi pour jaxase leen ak la classe politique comme ni mu koy tàmm di ko jéemee. ah est-ce que loolu la nekk mënu ko. parce que parce que tekk tekkaarale gi mu ne. njëkk na fee maye nii wii nii non gars yi di tëb di dal. fi mu toll nii nee nga moom ngeen di déglu. te moom ba fii aussi waxagul. non 2024 des na ñu ngi ñu ngi ci yoon bi ah, ñu koy déglu. est-ce que du du ñu tekk ba à la mu mu leen. su boobaa rek sénégalais yi jël seen responsabilité loolu du ñun Sénégal léegi on a un peuple mature on a un peuple boo xam ne kenn dootu leen tënk. kenn du leen tëj seen biir kër ni leen doo leen génn. on a un peuple boo xam ne kenn du leen dicté di leen wax fan la ñuy jaar. Hmm. peuple bu am fulla peuple ñu am te bis boo lu ñu attanul bis boo leen tegee lu dinañ la ko d' accord euh, euh, amnistie Karim wadd bi. Mm-hmm. ak xalifa Ababacar Sall bi ñuy coow ñu bari nee nañu parce que moom jël na xam na ne du bokk waaye faaw mu faaw mu sotti suuf ci cere ji. mais ñooñu bu ñu ñëwee ñoom mbaa du mbaa du jaxasi mbir yi. mais c' le droit le plus absolu ay citoyens sénégalais lañu. Hmm. muy Karim Wade muy xalifa sàll ay citoyens sénégalais lañu donc tey euh, moom. su fekkee dafa jàpp ni xëy na dafay corriger. Mm. moom mm. ay ay ay erreur yoo xam ne moom moo ko defoon. Mm. xëy na moom la engagé mais est-ce que il a le choix. parce que tey dans tous les cas. dans tout les cas amatul majorité absolue à l'Assemblée nationale. et que et que xamoon na ni. Euh, la coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne tey jii ñu nag moom ñoo bokk la l'Assemblée nationale par la force. leeroon na ko ni la coalition Yewwi Wallu intercoalition bi nga xam ne tegoon nañ ko. Hmm. mais mënuñoo dugg ci ci législature bi te du ñu wax ci. Ah. ci kaawu Karim Wade kaawu Khalifa Ababacar Sall. est-ce que est-ce du objectif am moom aussi mooy casser dynamique boobu. Yewwi Wallu mënu ko. parce que Karim bu ñëwee mu ko leer ni mën naa bokk. Khalifa Sall taxaw fee mu leer ko ni mën na bokk. gis nga lee nee naa la tout à l'heure sànq wax naa la ko. Hmm. ñun opposition. les leaders de l'opposition amuñu problème mu hmm. kii dey bokk ak kee du bokk suñu sañoon ñëppay bokk parce que kenn ku ci nekk hmm. ak ñi lay ñey say militant kenn ku ci nekk ak ñi lay bëgg ak ñi lay wóolu ak ñi lay fal hmm. ñun li ñu amal solo mooy nañu xam ni Sénégal pays démocratique la nañu xam ne tey Sénégal nekkul nit mooy toog di tànn kii mooy bokk kii du bokk kii dama koy nëbb jant bi kii dama koy gàddaayloo loolu du du prérogative am moom moom li askan bi di xaar ci moom du loolu Hmm. dafa war a bàyyi politique politicienne te mu liggéey Sénégal le peu de temps bi ko fi dese mais munul nekk tout le temps bras de fer tout le mm. temps bu tayee jóge ci kii dem ci kee su ginnaaw suba mu jóge si kii dem si kee du lool la askan wi di xaar ci moom ñoo ngi koy lancé ay alerte nag nag li fi jot a jaar yëpp askan wi da koy lancé ay alerte mm. malheureusement gisul malaakaat gisu ko gisul déggul mm. ah gisul déggul mu wàññi nii location beeg dund beeg yooyu est-ce que du réponse par rapport à ça la wax man nee naa la ko tuddee wàññi du ma ko tuddee wàññi <laughs> parce que man mënumaa yore cent franc nga nangu cinquante franc bi ci man ba mu neex la nga delloo ma juróomi dërëm yi te naan ma dama laa dimbali dimbali woo maa delloo sama alal te ba tey deseel nga ma. Hmm. moom ba tey dafa deseel sénégalais yi. d' mais c' est que nag parfois yéen ñi politique aussi xam nga bu ngeen bëggee falu le discours bi day rafet macha allah. Mhm. mais une fois élu da def lu leen neex mbaa yéen tamit bu leen sénégalais yi dénkeen réew mi du ngeen def ni moom. Euh, cin bu naree neex. Hmm. su baxee xeeñ. Hmm. ñun le candidat bi ñu am le président élagement Hadj Malick Gakou. défier naa ku mu neex na jël parcours politique am mu xool fi mu jaar yépp su fekkee am na benn. li ñu tuddee vaar. Hmm. luñ ko mën a génneel ci lu wane ni kii la muy wax. ak la muy hmm. jëf dafa am lu ci wuute nañu ko wax moom mooy le candidat bi nga xam ni. Hmm. Euh, politique rek ñoru ko. ut alal taxu koo dugg ci politique. damay faral di ko rappeler ki fi toog tey. ba muy campagne pour doon président Sénégal. le président Malick Gakou na alalam dimbalee ko ko. tey Sénégal amul benn secteur bu fi nekk boo xam ne euh, askan wi du mën nañu ni am na fu mu fa waree dugal loxoom te defu ko. Mm-hmm. ci wàllu santé dafa taxawal fondation maternité solidaire ni kat man comme que bi may juddu la sama yaay génn àdduna man war naa mën a fexe ba contribuer ci Sénégal ba nga xam ni tey jigéen bu ëmb. Mm-hmm. dina mën a am bu nekkee si ay jafe-jafe ñu améliorer ay conditions daanu dajul suuf waaye terewul. Mm-hmm. tey dem na ci dëkk yu bëri lu ci mel ni ba Ndiaye lu ci mel ni Gossas Njaareem Limaamulaay waaye gu ñu dëkk ak yeneen di dëkk yoo xam ne à chaque fois. dafay mm-hmm. dem ay kit mat de maternité yoo xam ne day dem pour dind dimbalee ko les postes de santé yi nga xam ne ñoom ñooy accueillir les femmes enceintes te ñu nekk ci condition difficile mhm. barki dem moo njaay li xew Tiwaawan ba mu xewee euh, ak bébé yi nga xam ne yàlla def nañu faatu ci incendie ba ñun ñii la yónni dañu dem pour yóbbu fa matériel pour dimbale hôpitaux yi mhm. tey si wàllu njàng mi tey boo demee ci secteur yu bari tey bari na ay xale yoo xam ni tey seen loxo waajur jotul woon ci seen ginnaaw ba ñu jàngee ba am bac bëgg a génn dem génn réew mi dem jàngi moom moo ko dox moo ko wax moo jël alalam ba tey xale yooyu dem jàngi soo mm-hmm. jëlee lycée Limamou Laye bii chaque année am na fa benn prix boo xam ne da ko teg xale bi nga xam ne moo fa dàq jàng moom moo moom mu appuyé ko soo jëlee ci wàllu sport kenn du wax jaar-jaaram ak Guédiawaye football club bi nga xam ne tey mm-hmm. euh, fu mu toll depuis le début ba muy gën a metti moom moo mm-hmm. ko teb yenu ko taawu ko ba am fu mu toll muy ci wàllu lutte muy ci wàllu bépp secteur boo xam ne ci monde sport la tey am na fu ci dugal loxoom nit